kon li mu Boy Niang yow doo ci bokk. Mm-hmm. ndax pare nga tey pour Boy Niang bu la promoteur seet see seen diggante gën a leer parce que ba tey mi ngi naan avertissement nga ko kañee. leeru la teg na fees ak tegul fees. te wëlbit gàng leen bëgg ndax wëlbit gàng daa xew léegi. ma wax la benn fa dëgg la Boy Niang am na lu mu fi def géej waaye mais heure bu ñëwaatee ma daanaat ko. heure bu ñëwaatee ma daanaat ko. Mm. kooku jarul sax laam-laam. ban mairie. bu géejawaay bi heure bu ma ñëwee jëlee ko fa. man la man maay président. président baa ngi ni toog. Hmm. ah lu leer laa la wax. mooy par rapport ak déclaration Père Diaw bi parce que gis nañ da cee cité sa tur. même mboolu géejawaay yi nan am ngor ak ngar mi jël entraînement yi sérieux te xam ni lii fa lii fajal ëllëg Guédiawaye ñoom ci ñoom lay jógee tey doo gisee déclaration Diaw bi tey jii par rapport ak défaite Balla bi. waaw xam nga suñu papa Diaw maa ngi koy nuyu en mu nekk nit ku dëggu nit ku bëgg Guédiawaye mm-hmm. ba moom bu sañoon même ginaaru Guédiawaye bu fiy génn sax dem di amee ji xeex fële ci beneen gox sax. day bëgg ginaar gi gañee mm-hmm. moom dëggoom mm-hmm. doon waalo waalo gi mu doon moo tax ni lépp lu géej waaye am naqar da koy metti parce que appel appel sur appel da koy jot te lool dafa neexul ci xool nag moo tax ñun fu ñu toll dañ koy war di gestu dëgg la li mu wax il a parfaitement raison dañ ko war di gestu di xool ci li mu nekk man dama ànd ak moom ci li mu wax. lim na boo lim na Balla Gaye du bëre na Balla Gaye Balla Gaye du bëre ren parce que Balla Gaye waaw moom gis-gisam gis-gisam la wax mais loolu ci Balla Gaye la dépendre yaa ngi dégg. Balla Gaye dina jóg dina préparer yu waat defaraat yaramam ko war a bëri ñu am seen ñëw bëri moom ñaanal ko ci ndam lu rëy. barke Seydina Mohamed. bu njëkk dafa am dafa bu ngeen amoon géej waaye. 2011 2010 2011 2012 dafa am doole bu ngeen amoon muy àndal àndal bu laaj gën amee combat dañu doon des génn rek dañ koy toog. wala boog li ci ëpp moom hmm. loolu loolu seen diggante seen hmm. ñàkk moo waral loolu. non géej euh, euh, père géej ñëpp benn lañ géej waay ñun ñëpp benn lañ yaa ngi dégg ñu lay doomu géej waay lañ ni Balla yi di génnee Lac de bu bëri tam noonu la ñuy génnee keneen a keneen waxi noppi Alioune Seye deux fii keneen ak keneen waxi noppi ñun ñëpp ñun ñoo bokk géej waay. c'est pas waaw mais waaw mais normal père. làmb ak coow ñoo ànd. Ah, waaw daf waaw voilà kuy yi ñoo bari quoi. kuy yi ñoo bari. Hmm. par force mbëkkante bi day metti waaw loolu la ko moi j'avais deux questions. Hmm. Euh, première question bi mooy nga hmm. euh, bi. waxaar ma wax ba pare. waaw moo feef mooma euh, graay ba foofu sant yàlla. sant yàlla baax a baax parce que am na ay nit yu baax yoo xamante ne bëgguñ ñu tudd seen tur loolu dama ci sant suñu père euh, Mbaw xam la moom tamit père Mbaw moom euh, taxaw na ci lu bari pour pour pour sama ginnaaw ma am wéeruwaay mu wóor tey sant yàlla baax baax am na ñoo xam ne bëgguñu ñu tudd seen tur mm-hmm. mais alhamdulilah ba lu ñu jooy rek ñu fompal ñu suñu rongañ waaw mais kilifa googu moom yal na yàlla guddal fanam. benn question bi. Balla Gaye Ndeye la boo fa nekkoon nan lay demee loolu mën na la si def ba ne cirib tànkam. mën a cirib tànk booy Niang. waaw jël tànkam. waaw loolu moom dañuy bàyyi ba mu jël tànkam mais nii nii nii nii nii. Mm. defet moo ñëw ak lu nga bëre dama leen jox benn exemple. bëri ak loo ko mën mën mën mën mën mën mën mën ak bu ak loo ko mën laalax de bu yàlla ne tey boo nee coppe tànk day dindi xam-xam bi lépp doo xam sax ci ciy liggéey bu yàlla nee waaw waaw la da ngay xam noo koy daanee da ngay xam noo koy dëjee mais boobu yàlla moo àndaloon moom moo tax ba mu nee coppa tànkam par force du xam fu mu jëm parce que boobu yàlla àndaloon moom. nu mu bëree mu bëree noonu. loolu du waxu fii nag loolu il faut ma toog ak moom ma waxtaan ak moom waaw mais képp ku xam Balla Gaye ñëw mu normal mu ñëw laa wax mu normal Balla bu jëlee sa tànk moom xam nga leneen la ñuy wax mais boo ñëwul rek ñëw comme ça la woon. non déggoo ma ne la boo ñëwul rek ñëwoo waaw. waxtaan gi di waay nekk ñu gis Balla Gaye 2 Sa gis Lac de Guiers gis guy gi gis ñeneen ak ñeneen est-ce que loolu na nekk ce que par nañ pour benn loolu waaw benn la. non pas benn parce que am na bu asu maa ngi ñëw maa ngi ñëw. waaw am na loo xam ne ko. Ah, est maa ngi ñëw. Hmm. man su ma la waxee da bu tëggee da nga xaar mu daaneel ah père nag yow tamit ah, waaw ok xam nga tey lépp loo gis waxtaan la mooy li may faral di wax rek man sama commune sama sama diggante ak Balla du ci média bi laay toog di ko di ko wax parce que loolu concerné wul kenn man ak moom la lépp lu ma war a wax ak moom moom dina ko dégg mais du ma toog ci média bi naan lii ak lii ak ak lii dañoo war a toog dañoo war a waxtaan non concerné wul kenn loolu loolu man ak moom la te dinañ ci toog waxtaan ci su ma la ko waxee rek taxalee mu tere na seen xel daal incha allah bu neexee yàlla dinañ ci waxtaan. waaw bu yow yaa posé question ba koy xelu supporter yi ba tax. Oudé bu dee wax ci bëy wopp dañu yaakaar ne dara man mënu ma laa laaj question mais question bi ma bi ma lay laaj mooy. ndax da li nga xam mooy autorité yi géejawaay ak kilifa yi nekk géejawaay nga xam ñoom nank géejawaay yi li ci ginnaaw moom passé na li ci kanam lañu wax. ban réaction ngay def ci ñoom porte à ci seen kanam ba ñu gën la mën bàyyiwaat xel que xam ni mbaam daa gàtt waaye jur gi la bokk mm. ci njabootu Géejawaay nga bokk nan ngay toje sa bopp jinax yow ba ñoom ñëpp ñu defaat rassemblement bopp sa gannaaw waaw Père dégg naa li nga wax li wax rafet na trop parce que tey bu ma nee autorité Géejawaay yëpp ñu topp ci ginnaaw Lac de kon fàtte naa samay rakk autorité Guédiawaye na ñëpp topp ci ginnaaw ñëpp mm. ñu xam na ñoom buñ fi toogee tey ñun la ñoom buñ fi toogee ñun la mm. comme dañ leen di ñaan ñun niñ fi nekkee ñuy dooleel Balla Gaye dooleel Lac de Guiers Saké Alioune Sèye 2 keneen ak keneen ainsi suite ñun ñëpp benn lañ nañ jàppale mbëri ndaw yi sax bu ñu yem fenn kese nañ jàppale ñëpp te ñu xam ne ñoom fi ñu toog ñun ñoo leen fa teg question boobu bëggoon naa ko bëggoon naa ci dellu tuuti man question boobu nga posé question bu rëy nga posé mhm. te bu soobee yàlla ak bu question boobu nga posé mhm. bu subaa mhm. wala ginnaaw suba dañ xar suñu dànk tuuti mbaw xaaj euh, xaadim mi ak euh, dof El Hadj Gueye tons Assane Mara ci loolu lañ nekk nañ dugg porte à porte sa buntu yëpp dox ko bu soobee yàlla ak euh, ci Balla Gaye est ce que seen tëju waxtaan euh, mu mu faju sa balla hmm? ah, parce que ku la xam-xam ni jege nga bàyyi trop te déggal na la est seen tëju waxtaan loolu dina ci bokk waaw mais du lu ñuy wax fii mais dinañu waxtaan mangu te su ma la ko waxee rek takku incha allah incha allah beneen bi financièrement eh, bi Ibba wax ku xam mbër xam ne ñu ko jege dafa bari dafa métti dafa diis. Mhm. mais à chaque fois dañuy dégg ci yéen boo leen waxee ñu ne nit ñu baax ñi mais est-ce que il jotul ngeen am benn organisation boo xam ne. Mhm. cachet yi ngeen di am di ngeen ko mën a investir fenn. ba bu combat raaree. Mhm. bu leen gëj a bëri comme ni nga gëj a bëri. loolu di doon appui ci mm-hmm. est-ce que léegi nañ loolu ñu ngi ci xalaat bu baax a baax mais xam nga mbër moom am na loo xamante ne euh, tey mbër benn dafa social euh, ñaareel bi si moom mooy tey boo xoolee tey mbër buggul nekk sax di wax ci ay ay ay ay li muy investir ak yooyu noonu parce que lu bërim da koy nëbb dégg ko ah yaa de lu bëri mbër bu koy def rek da ko da ciy da ciy da ciy nëbbatu parce que cat dafa gaaw am bis cat dafa sew ba tax na tey suñu nit di baax ñu ngi ñuy dooleel dëgg la mais léeg-léeg ci bis lu ci suuf nag loolu danañ koy ñu ngi koy liggéey ci suuf bu baax a baax a baax. kontaan nañ ci yow. prochaine combat la dëggee daal moom. xaaral def na xalima Lamine Manga xalima FM. ok alors euh, combat yi nga xam ni bëgg nañ ko en tout cas muy combat royal. Mm. fi nga xam ni moo ci jàpp ni moom la ñu jàpp ni moo gën a jàmp. Mm. mooy sa diggante ak Modou Lo. et que ci Modou Lo ci côté supporter wala staffam li nga xam ni moom la ñuy reproché mooy da nga nekk mbër moo xam ne da ngay rasu te doo jël si. est-ce que tey jii nii devant les caméras di nga jàkkaarloo ak Modou Lo bokk ni ko mu jël sa combat bu jëlee sa combat di ko fekk si di ko duma di ko daal. ok dégg naa baax li nga wax nee nga sama combat ak Modou man maay dem def lépp ci gàttal nu ko bëgg a waxee mais pour pourquoi man ma war a dem def lépp lu tax moom mënul ñëw ñu daje. mu saf sàpp. mais ñoom li ñuy bu ñëwee ngay rasu. non Modou même bu ñëwee rasu ci làmb la bokk loolu la gars yi xamul. il faut ñu xam ne ne tey Modou ba ma ko sama combat moom ba mu mujj bi passé ba ma ko dawee jël lu mu def bu rasul day daanu bu rasul day daanu dafa rasu ba génn ginnaaw raay <coughs> ah mais rasu ci làmb la bokk fa baago ñu jël wu ci rasu rasu rasu rasu moom boo ko mënul moom fi nga taxaw ni ba ma la a ngay arrière ba génn loolu ci rasu la rasu la bokk il faut yi comprendre loolu yaa ngi dégg bu ñu bëri en tout cas daal naa la leen ci kàttanu yàlla une troisième fois di nga gis chute te géej waaye danañ am mbég boobu boobaa incha allah. bon li may tàggatoo leen la rek di leen santaat baax baax yéen presse bi ah. di sant di leen sant di leen gërëm waaw di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm euh, yàlla doole leen ci lépp daal di jël lépp nag di ko toog ci loxo grand Ibba ndaxte. sama lu bari fekkee nga ko waaw nag pëlsor di waale boo leen koy dégg ci bëkkan la jóge kon donc di ñaanal yéen ñëpp tant que vous êtes di santar sama papa mu ngi nii toog père xam naa ne moom per moom jaay moom ñu ngi toog di laaj la moo tax père la moo tax père mais ba léegi kumpa gi dina leen sonal yaa ngi dégg mu nekk sama xarit nekk sama lépp sëñ Babacar a ngi nii sama sëriñ Fadel ah yeneen ziar yéen ñëpp sama grand lama xam naa coup bu ma dóoroon boobu ba léegi coup boobu mënu fexe ba dal kenn ah Bécaye sama jàmbaar yi anamu sax waaw Bécaye waaw grand Bécaye maa ngi koy ziar xam nga borom géej waay info ah mangaan tamit gars daal kontaan naa ci yéen ah di santaat sama staff bi yaa ngi dégg ñu leen sant di leen gërëm ah tamit père Mbaw <laughs> moom moom beneen affaire la père Mbaw moom ah mention spéciale à lui Père parce que xam nga la ma doon ko jox mention spéciale dafa fekk foo xamante ne tey am na loo xamante ne soxla naa ko mu ñëw teg ci loxoom Père Mbow hmm. kon donc géej waaye nañu ko jox ci bu baax a baax hmm. day défendral du la dëggee doy lay défendral kese de hmm. mbër yëpp lay défendral mbëru géej waaye lay défendral ñëpp lay défendral bu gisee dëgg lay taxaw wax ko tey bu ma defee erreur dafay ñëw ba fii day ñëw yéeg ba ci kaw sama xaritu yaay la mhm. wallahi azim bu ñëwee fekk ma wala may nelaw sax day toog sama yaay waxtaan ak moom mhm. kon donc kooku dañ koy bàyyi ak yàlla yàlla na yàlla guddal fanam tey gis nga jëmm ji toog nii xaadim kii euh, moom moom moom moom love design ah, borom love design moo nekk nii mu nekk nit koo xamante ne moom tamit euh, tey képp ku bëgg vêtement yi rafet ak yëpp boo ñëw comme yow père yoo xam ne da nga bëgg lu baax sëñ Babacar a ngi di Fadel ah yéen ñëpp boo leen ñëwee ci moom rek macha allah seen xol dina seen mu ngi nii yaa ngi maa ngi leen sant yéen ñëpp di sant dof sama doom nday ah dof moom beneen affaire la mention spéciale gis nga kii kii moom euh, kii mooy Baye Fall wala dëggeer numéro 2 waaw kii nit ku baax la wallahi ah Mara sama doom nday borom Burkilin Mara moom sama Mara la. sama tuur la quoi man sama tuur la heure ma soxlaa dara rek moom laa ñëw sàkku ko ñaan mu nekk nit ku baax sama bambara la sama lépp. body amama ki ñu naan body xam nga am na body ci làmb ji wala amul mu ngi ni mu ngi ni moom moom sama sama tonton la sama lépp la tons moom day day day somm samay mbir damay dem ba mujj ba nga koy yërëm fu mu dégg loo xamante lu baax day wax fu gisee lu ko metti te man xamal lu ma gën a neex ci staff bi alxamdulillah fu la dëggee de defee erreur bu ndaw billaahi bañul ko ko critiqué dañuy dal sama kaw dal yi metti te loolu mooy ànd bu sincère ànd bu sincère bu sa nit nekkee ci erreur taxawul nga ne ko hee ci erreur nga nekk mhm. te man boobu ba léegi yow defe naa ne gray ba defe naa ne azumi fi nga ko fekk tons fi nga ko fekk ñoom yeneen booyam ñeneen ñeneen ñëpp fi nga lay fekk boo bële ñoom lay àndal ci dëgg fii ñoom ñoom duñu raay sama ginnaaw gi xamuñu ko sax des fois dama leen daw mais yàqamtuwuñu xam nañu tuutaat dinañ ma jàpp <laughs> te bu buñ ma jàpp wallahi azim du lu may lu ma toog di wax ne dañuy dal sama kaw bu mu defee erreur même bu fekkee ne wax ngi may wax sax rafet na sax duñu dañuy ñëw ma félicitation mais après doxalee nii gënal yokk man loolu laay dund ak ñoom boo yore staff da nangoo wax mbër mi dëgg te bañ a raay ginnaawam maa ngi sant sama conseil communication asu maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ba mu jàppee ba léegi maa avant mbër avant may doon mbër ba nii ba tey ñoo doon ànd avant may nekk mbër de liggéey frigoriste di ñëw ñooy ànd tey boobu ba léegi mu ngi nii sama wet kon donc maa ngi koy sant di sant sama doom nday sama xarit sama rakk ju baax koo xam ne moom dem day werante rek ñu naan ko maam Abdou mm-hmm. maam sama sëriñ la sama xarit la sama lépp du nuyu waajur yeeg ñëpp di santaat sama sama sama waa Lat famille mais Njaay Kolobaan sama géer la sama lépp la Njaay Kolobaan mu nekk sama géer sama lépp bu Lat famille yi tamit gis naa taxawaay bi taxaw ci combat Balla Gaye bi maa ngi sant waa Lat famille bu di leen sant presse bi waaw géejawaay nag mention spéciale géejawaay